bon euh, euh, balaa may commencer am na loo xamante ni da nga ko rappeler muy suñu appartenance F24 donc tey xëy na teewalu ma fi kuréelu Pastef ci loo xamante ni duma ci mën a sore donc mais sama gis-gisu bopp maanaam tey xam moom moo tax procès am mais balaa procès boobu di am n'oublions pas que ni beaucoup de choses se sont passées muy li nga xamante ni tey moom mooy euh, Mame bi nga xamante euh, ni moom la joteel ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni moom gis na ni tey suñu justice su réew moom dafay bofwe ay droit am suñu justice su réew joxu ko li nga xamante ni moom mooy ay gëddam ba tax na gis na ni tey ñooñu buñ tee donc bu fa présence am amul façon parce que loolu moom moo tax tey jii mu taxaw génn daal justice euh, Sénégal ni ma koy gisee ak ni muy doxee te euh, nekkul lu nga xamante ne moom la ñu tëral ci li nga xamante ne moom mooy suñu suñu justice donc cela veut dire que ni tout simplement Ousmane Sonko a ses droits donc de ne pas répondre il faut l'admettre aussi parce que loolu yoon bu ñu ko waxee bu ñu ñëwul yoon may nañ ko ña fa nekk tamit jël décision bi nga xamante ne yoon moom la leen may donc cette position donc je dirais que c'est purement au, au à Ousmane Sonko ou bien c'est de répondre à cette question lu tax Ousmane Sonko nanguwul dem wuy ji li nga xamante ne moom mooy loolu mais ñun li nga xamante ne moom moo ñu concerne muy cadre f bi nga xamante ni euh, son Sonko signataire la si moom mooy il a notre soutien parce que on a vu que ni depuis bi mu eh, eh, nekkee ni dafay bokk candidature ba léegi Ousmane Sonko dañ koy tëral ay ndëgg sërëx yu nga xamante ne dañ ko bëgg éliminer te ñun dafa nekk ci point yu nga xamante ne je l'ai cité tantôt dafa nekk ci point yu nga xamante ne ñun dañ koy défendre donc on peut pas admettre tey benn nit jug pour am tey jii poids bi nga wax léegi sànq Ousmane Sonko dafa am lu mu représenté Ousmane Sonko dafa nekk benn vision si certaines personnes Ousmane Sonko dafa nekk benn projet sur certaines personnes. nekk espoir Ousmane nekk espoir de la jeunesse. donc avec ça mënoo jël benn nit bu mel noonu nga jël ko bëgg ko bërëx bërëxee euh, salfaañe ay duwaawam xëcc ko bëgg ko jël pamtee ko. nangu déjà on a vu le cas de euh, Khalifa Sall éliminé politiquement ci euh, ci ci li nga xamante ne moom la ñëpp gis gis nañu li nga xam ne moom mooy Karim Wade idem donc est-ce que ñun dañu war a toog à chaque fois tey nit ku bëggul adversaire éliminer adversaire am na ko neexee ñun tamit ñu toog mel ko amuñu démocratie wala amuñu liberté d'expression wala ñun dañu war a toog xëy na peut-être tënku ci ay waxu benn nit wala tënku ci ay jëfu benn nit ba tax na tey ku taxaw ci na salfa euh, jàkkaarloo ak moom yow lay doon wala du du doon yow noonu la gisee ay mbiram donc loolu moo tax question boobu je dirais que ni c'est purement aux pacifiens de répondre à cette question